parrainage ñu ngi ci. Euh, xam nga parenage dafay am benn élément bu ñuy tuddee discriminant. Mm-hmm. moom mooy loo xamante ni nekkul ci fichier bi. en 2019 c'était la carte de c'était le numéro de la carte d'identité CEDEAO muy 17 chiffres yi. Mm -hmm. euh, élection législative yi euh, la taille de l'électeur bii nii c'était c'est la date d'expiration de la carte d'identité ce sont des éléments qui ne se trouvent pas dans le fichier mm. li ñuy remettre kii mais euh, ñëpp ñi participer woon ci élection 2022 yi ils disposent du fichier d'ailleurs c'est un élément bu ñu utiliser souvent pour euh, jéem a contrôler seen parrainage parce que tous les autres éléments hormis la date d'expiration mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci ci ci biir fichier bi donc fichier bi man jàpp naa ni du problème man man sama sama ci sama xalaat du problème mais c'est le processus qui a été biaisé euh, Cheikh Ousmane mu ngi doon wax léegi mbirub euh, euh, les fiches de parrainage yu ñu bañ a remettre à certains candidats xam nga loolu dama jàpp ni am na lu fi am lu am solo lu am fii mhm. euh, sénégalais yi walla yenn journalistes yi bàyyiwu leen ci xel mooy lan moom mooy la cour suprême à deux reprises le parquet général de la cour suprême wala magistrat yu ko représenté taxaw nañu am taxawaay ñoo xamante ni ñoom ñoo représenté le ministère public ñoom lay les procureurs ñu taxaw ne euh, candidat yëpp la ñu waroon jox fichier mm-hmm. ci ñaari yoon à deux reprises mm-hmm. muy fee yu am solo yuy yoo xamante ni waroon nañ ko analyser par rapport aux avancées yu ñu am un peu ci indépendance de la justice mm-hmm. parce que suñu waxoon indépendance de la justice souvent indépendance parquet la ñu wax mm-hmm. bien que parquet général cour suprême dépendrul directement ci ministère de la justice mm-hmm. mais quand même c'est un fait notable ñu dem ba cour suprême agent judiciaire de l'État taxaw am benn bëgg-bëggam ñooñ ñooy avocat état bi le parquet général procureur bi nga xamante ni moom c'est le représentant de la société mu taxaw mu jël ñu gisoon ni procureurs yi souvent dañ doon naan ni ñoom dañuy topp li exécutif bëgg mm-hmm. li pouvoir bi bëgg ñu ñëw à deux reprises à l'espace deux mois à deux reprises ñu taxaw ñu ne tous les candidats dañ leen waroon jox seen fiche de parrainage mhm. qu'il y a une rupture d'égalité et que l'administration ne devait pas se substituer à la justice mhm. en l'occurrence fii au conseil constitutionnel mhm. c'est un fait notable avancé la avancé bou am solo la mais man gisuma nit ñi décision bi la ñu xool parce que la décision est rendue par des juges du siège qui sont censés être indépendants les procureurs ne sont pas censés l'être parce que dañuy naan ni ñoom ministère public la mhm. ñoom euh, dañoo dépendre ci exécutif mais fii à deux reprises ñii nga xamante ni ñoo représenté woon parquet général euh, euh, ñaari yoon taxaw nañu wax loo xamante ni loolu la avocat opposition yi wax te ñun jàpp nañu ni démocratie aussi loolu la administration dafa am. wàllam wàllam justice am wàllam. fii la justice des élections c'est le conseil constitutionnel. Mhm. moom en dernier ressort moom moo waroon xool ne ah tel candidat remplir na conditions yi tel autre remplir ko. mais fii dañoo bëgg en amont. Mhm. régler le problème pour éliminer yenn candidats yi. Mhm. parce que loolu loolu moom moo regrettable mm-hmm. mais mais foofu su su ma la suivre kon euh, administration bi ngay wax mi CDC mm-hmm. ak DG amuñu woon droit lankal li ñu lankal Ayib Daffé amuñu droit xam nga administration mënul juger parce que dès lors où on empêche à un candidat de prendre une fiche mm-hmm. su ñu demee ba ca cappaandaw ga su ñu demee ci conseil constitutionnel lan la ñu wax euh, dossier motul Mm-hmm. mais kon taxawaay cour suprême par rapport ak nu mu casser la poire de deux euh, lan moo ko justifier aussi kon. Euh, en tout cas ñun euh, liberté. Mm. ak bi parquet général cour suprême am. liberté bi magistrat yi ko représenté. magistrat yi ñu xam. boo xamante ni aussi sénégalais war nañ leen gën a xam. Ousmane Diagne nekkoon na fi procureur Dakar. ñu bëri euh, ñu xel taxawaay bi mu amoon. ci événement yi amoon. les événements pré-électoraux. Mhm. dañuy ñëw indil ko yenn arrestation yi mu ne du ko jël. Mhm. parce que voilà c'était politique. Mhm. loolu jàpp naa ni parce que procureur. Euh, man du ma bëgg a wax sama wax mais mhm. en fait nit dañuy wax juge dem juge dem man ci sama carrière yëpp pratiquement procureur la mhm. euh, on a de dire que ñun ñi nga xamante ni parquet la ñu nekkoon que parfois yaay gën a libre sax juge yi mhm. waaw donc mbir mi du pouvoir bi nga am walla bi nga bañ a am volonté bi nga am pour euh, nekk un magistrat indépendant fii su may wax magistrat indépendant distingué wu ma juge bi ak procureur bi xam nga euh, Mariam Gueye Diop mhm. euh, moom tamit wax dëgg yàlla moom moo njëkk représenté parquet général mm. ñu taxaw wax la même position ki a été répétée un mois après par son mm. collègue Ousmane euh, Diagne je pense que loolu waroon nañ ko saluer te benn lueur d'espoir la mhm. parce que wane na ni que magistrature bi du magistrature bi yëpp moom moom moo nekk euh, di suivre euh, l'exécutif donc processus bi loolu la parce qu'en réalité euh, man duma ne élection ñëpp a war a bokk ak yooyu parce que mhm. soo ko waxee dans l'absolu c'est c'est ouvrir mën nañ ne deux cent yëpp a war a bokk. ama mais mais mais nañu bàyyee. Mm-hmm. aux organes. habilités dédiés habili habilités judiciaires surtout ñu décider. organe juridictionnel ñoom ñoo war a taxaw conseil constitutionnel moom moo war a taxaw xool mm-hmm. nit ki ndax. dana war a nekk candidat wala nekkul candidat donc donc loolu. Hmm? Euh, c'est juste pour vous relancer mais monsieur dem bu ñu demee ba fii euh, au Sénégal euh, décision administrative yëg ci kaw li nga xam ne moo nekk décision de justice loolu est-ce que wane wanewu rek comme yow sa genre yi le fait que ñu démissionné ci li nga xam ne moo nekk la justice sénégalaise est-ce que c'est pas aussi benn coup dur pour notre justice. xam nga man euh, damay wax chaque fois je j'aurais euh, je, je n'aurais jamais souhaité mm-hmm. cinq ans après ma démission ñëw di ñu may ñuy vivraat la même chose wala pire mm-hmm. parce que fu mu toll nii je pense que justice bi crise bi mu nekk moo gën a garaaw que bi mu nekkoon moment bi may démissionné c'est sûr voilà mais benn processus la woon boo xamante ni pourtant ñi ci doon bàyyi xel waroon nañu xool UMS. Mm-hmm. ñun bi ñuy nekk ci biiru UMS ay 2009. ñu dem magistrat yi seen taxawaay moment boobu. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni assemblée générale yi ni mu doon demee magistrat yi di réclamer plus d'indépendance waroon nañu xam ni am na lu ñu gisoon am na lu ñu doon dund ci biir. Mm. léegi nag loolu dafa exacerbé wu ba mu yegg benn niveau bi nga xamante ni amul sax laam-laame léegi. ñun bi ñuy taxaw di am suñu position bi am na peut-être ñu ci doon douter. Hmm. ñenn nañu dañ doon taxaw dina ne peut-être que c'était personnel ak yooyu mais fu mu toll nii c'est une évidence que la justice est en crise hmm. que l'indépendance de la justice sénégalaise interpelle nit ki fépp fu mu mën a nekk hmm. war na d'accord ci loolu indépendance bi c'est une préoccupation et élection yi ñu jëm